yem ni kay musaf la nekk sa loxo ndeyjoor benn waay bu tuddoon Moussa taful benn waay ñu dàq ko mu ne ci jàkka ji sarax fekk ñuy julli gaye ilimaan jàngi jiiti mu taxaw rang këmp kopp yi mu sàcc yàlla xiir ilimaan yi mu jàng sóoratu taax fekk waa ji Moussa la tudd baas ci ne ko wa maa tilka bi yaa Moussa ah mu foox daal di ne gis nañ ma waaw xam nga dafa tolloo moom mu ngi këmp sàcc jàmbur tudd Moussa ilimaan ji jàng ne ko loo yor yow Moussa am na ci war mu salaati war mu salaati xarfan fal xaasifaati xarfan wal naasiraati nasran fal faariqaati farqan fal mulqiyaati dikran xuduran aw nudura inama tuaduna la woo xoo oh, fay sa nujumu tumisat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 يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى دل إذا لا ذو حب لا دليل ولا يخرج من لهب إنها ترمي بسرر كالقصر كأنه جمالات سفر ويل يومئذ للمكذبين هذا اليوم لا ينطقون ولا يسنون فيستعبدون ويل يومئذ للمكذبين uma na waay moo ñëw ci jàkk ji ñuy julli mu dem taxaw ci première sàppe ilimaan ji ne alam noxlikil awalina xanaa du man yàlla maa ala boo ñu nekkoon am première mu ne roccet dem di mu ne roccet dem di sem sàppe mu ne suma nag boo ma toftal ca laaxiri li ñu sasoon ci ñoom mu ne roccet dem benn fële fekk mu ngi tudd mujrimu mu nekk faalika nafalu bil mujrimina mu ne la abtaxi si waaya ne bëgg jot génn jàkk naa ala boon ñu jiitu mu ne kële dem arrière mu ne na topp tañ la topp mu beru mu ne noonu lay def ku ñu wax mujrim te waa ji tudd mujrim mujrim ñii man la ñuy wut kat saa wee dafa moom rek yàlla ne Moussa loolu ngi wax kuy wax kenn du ko portale donc boo ma bëggee portale danga may tàggu ma ma noppi ñett mais nit koy wax lamiñ wi day génn alors ku ko gis ne ndeke kii bu sax ko fekk yaa ma def noonu melu ma noonu Abdou dinaa ko ñaanal appareil bi wér bànneexu xëy dal nit guddal tont ngir ki ngay waxal nga bànneexu waale ci au lieu tontu tontu lu gàtt nga guddal ko mu ngi mel ne ndaw soo nopp takk mu gunge la ba ca mbedd ma nee ndax di si suba nga ne ko ah su fekkee ah, ah, <laughs> mais nekk wax fa ne ko waaw mbaa dee fekk waaye di ko guddal di ko guddal nag la si sa xitaab la si sa xitaab bi arab arab dañu foor seen wax comme yeneen dafa am sous-vêtement am chemise jabar din garab bu kon boo ko safaanee rek du baax seen wax yëpp noonu la mel. toftale dégg la bàyyi alaaji Maalik wayam bu ko way de alaaji kay dafa gudd sañu bëgg a tàmbali déedéet tàmbale guñ dañ doon nuyoo wasaara sunnun wa usulun yaa waxyaa <laughs> maa yusunnoona anna lam rasul wasami التفكير لتدل تفكير ما يفوز اللف أرادنا بهذا التفكير للتحقير بهذا التفكير للتعظيم بهذا التفكير للتقريب بهذا التفكير الثلاث سيدة أراد بهذا الوقت اليوم خاب كما كان عندي مي وقت تريل قطق موحق دينا وقت لفت خاب قطق خاب قطق دينا وقت لفت خاب قطق أجاجاني ما تقوى يدولو توتي دينا بتاع سيماء بتاع خيري تقريب تصير تقريبا مولي حميون اللي تي زاوية بي أنا ليس فراسة هذا أوكي سبحانك خير رحمني sëñ Muxtaar gumba daal boo koy yónni mu lëndëm dafa naa bañ Mansour boo gumba mu ne lëndëm dafa naa bañ rek mosuloo yëg sax fu mu leere waaw nga ne ko njàkki suu la jàkk Koweït am nañu ñaari gan njàqare toroxte ndax maa ngi suñu noonu mosu ñoo foog mukk ne ana lamar l'islam sol bu semi dana yokk bopp Ousmane ak ba Omar di ci dugg daal leen nag mooy firi să mă țit sarni, să mă țit, țit și cât trebuie cu de bani, cu noi noi. مدد قال هل ترى من فتور ما ترى في أكرمان من تفوتي yàlla ne li ma bind xool ko ndox su tonte am na asamaan si topp si fii taram feeñ خلاتل نتي جنفا رجل ما كما كما كما ديري في خلاتل الدرا من فطورين قسنا فين نبقى تحق داخ ويقول دو فاطب لين غني نبقى قول ارجع البشري يلو بات ألس شو مرجع البشرة يلو بات الخل ينقلب إليك البشر خاشعا دينا مجير كفر دينا مجير خلصف أنك تعطي نخدو قسنا لا لا لا لا دينا xaj maa li ne juróom-ñaari asamaan yooyu ne bi traversé na ko génn guddi siyaare boromam du ñu mën lu dul waxtaan ci ndax moom la dajeel ah, xew-xew bu rëy la nit ku gën ji asamaan yu juróom-ñaar dem ba passé sidratul muntaha ah, jibril na ko soo jiitoo ma lakk su ma jiitoo lakk fii laa mën a yem mu dem moom kenn agalu mi nii yaa sule ak foosi agalu mi nii adduna mi wax nañ ko ko juróom-ñaar fukki yoon guddi keroog benn adduna mi bu nekk traversé na juróom-ñaar fukki junne kiiraay kiiraay bu nekk salaay dox juróom-ñaar fukki junne la xaaba xaw sey ni aw àdduna ñoo ko xëy yow Mouhamad fa inna rabbaka yusalla arrête arrête bul avancé yàlla day julli dina mën a yàlla dina julli كيف يسألنك defee yusalli ala nabi maam geneen jaaxle foofa ma taxaw jibril waññee ko bu yàgg mu mel ni gëj nañoo gisee sa yor yor ba timis maa ngi dégg baate Ababacar ci sama kanam Ababacar moo sori yàlla mujj na ko wax ne baat bi nga doon dégg du Ababacar dama ko defoon xifyatan an tataawasa li kay takuna taanisan bi ka dama la ko defaloon muy séwétal xam naa ne mooy sa xarit te palaas bi dafa raklu soo déggee baatam sam xel dal xam nga booy jàpp xar mu rabe da ngay wut la ka def ci dugub nan ko ko nii pour nax ko jàpp ko yàlla ba mu bëggee tatafu rasulullahi baati ababacar la soppi dugub di ko ko yëngalal muy jegeñ mu di ko yëngalal muy jegeñ ila xaaba xaw seeni mu ne ko taa faabe ila tiima waa ma katabal fois du mara ma ya dana nag basari bi jeex noonu fu nit loo xam waa barsax niiw yi jiitey niiw kuy gis niiw te du gént dootoo nit kuy dul mu nekk ci tiitari barsax ñu bokk ñu ñu suul ba ñibbi état mu dem ba génn leen nekk malaayika dugg ci gurbi malaaka yi di wax ak ñoom di leen gis dem ba malaaka yi mënatu ñoo dem mu nekk nag ci gurbi malaayika malaayika ya na yàlla jullee ne bi recevoir nañ juróomi aaya foofu yu jibril yëgul alxuraan juróomi aaya ngi fi yu jaarul ci loxo jibril cent quatorze saar la ñu ne cent treize dañu dàmbale lan faal ak bara def saar ngir limaamul bas na ne bi daan na wax ne tax may xàmmee fu saar fu saar yem ak moroom li ma ko daan xàmmee mooy bu jibril ne deret rek dal li may songa na tereet jàng nga xam ne léegi nga war a jokk ci la woon démb waaye bu nee dara na auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim nga xam ne bopp sàll bara amu ko booy jàng ba ci bara doo wax bismillahi da nga naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar baraatun min allahi wa rasul benn saar la ñooñu loolu leen juumloo ñu mën a jàng ne du benn saar dañu nekkoon ci armistice bara ne nañ yëkkatiwaat jaas yi comme nag bara saaru jaas la te rahmaane ak rahim yi yërmande la yërmande dëppoowul ak jaas yi gisala ci sariya booy reen di xar mbaa day mbaa nag bisimilahi rek ngay wax bisimilahi rek ngay wax doo wax rahmaani doo wax rahimi bisimilahi soo nee rahmaane ak rahimi kon li nga wax ak li ngay def bokkul rahmaane gi rahimi yërmande lay firi te paaka bu ñëw ci putam jàmbur xiiti xiiti dootul yërmande waxu la dëgg wax bisimilah rek yàpp yi dagal 114 phares, 60 ici bleus, 126, n'est que 440 robots, 880 soumoun, 6666 aïe, 77 449 le n'est que 232 000, 015 si araf. La composition araf yoy bamou de bat, ni composition bat yoy bamou de aïe, ni de boire bolé bamou de soumoun, ni de boire bolé bamou de rubans. ñu di ko boole ba mu di Misir ñu di ko boole ba mu di Égypte ñu di ko boole ba mu di saar fukki saar yi ak juróom-ñaari na ci kaw. na bee ngi recevoir Makka 82 saar recevoir Médina 32 alxuraan jeex 82 plus 32 114 ak kay xam nga lu mu jëkk jël ci Makka ci dara xam nga lu mu mujjee jël mooy lil mutafifiina ba mu ne jëpp Médina ci réception ba lañ ko wàcc ci dif la mim salik moom dafa jëkk jël lu mu fa mujjee jël Isaa Jaan Rasulullaah bu dee bopp saar farwir nag al yawma akmaltu lakum diinakum bu dee ñaar yi mujj ci xàccur bi nga ne ëqatara ba tëyi kaa ñe lay awu ne ëqatara ba tëyi kaa nga ne ti ëqatara ba tëyi kaa gaa yi ne ëqatara ba tëyi kaa nga ne ti géew ba sarax ne njàngi li saraay ne lay jiri brahma rab mbargaan hóor yunus bara laas lan fàll lan am njogu jigéen gi laay lan soob

bu naqari tont bu dul jur doom te doo ko mën a fase waaye wax leen amin déedéet am na sax ñu wax ne ne bi ni nga foore looy def fii ci yoonu safara mu ne damay bañ kenn ci sama xeet wi ñu yóbbu ko jaanama te yóbbanti bii mu am dina yor musuwaar boo xam ne dina ëpp àddina téeméeri yoon ñu fas ko ay pas-pas pas-pas bu ne laa ilaha illallah bu nit ma sa wax a ciy nekk ñu bind sa tur ci ko nga gis ku ñu panti panti mu jekk di ba toll ci moom ah yow ci man xeet nga bokk ci xeetu Muhammadiya doo woon julit ah kañ mu xool musuwaay bi gis sa tur fekk ci lu toll ni melentaan ne dellu leen peesewaat ñu ne ko kii càncaayam bi poids bi mu am kii jax yow na dellu mu ne dellu leen rek xam nga laay laay la laa kenn moo ko pes ba fa bay asamaan juróom-ñaar suuf yi juróom-ñaar doj yi nit ñi jinne yi géej yi teg ko ci braas teg laay laay laa benn ci braas mu ko moo ma wax la boobu benn at bu tuuti balaa ma dugg ci way man jaa bil asanati lu ngeen koy firi ah waaye de du fa alay de fàttali ko toujours loxo ak alay ok man jaa bil asanati bil asanati fa loxo fa loxo واحد يقول في لا اله الا الله مفكر لا اله الا الله انه كفر لازم دون اسرى الفالحه نعم ما نعم، دون نعم، نعم، اسرى الفالحه مرسول قران لا اله الا امول امول امول نكو ولا بيسل القران كو اندي بن بات لا اله الا ام فك يتول نونو كون لا اله الا بوبو دنج كاي سيتال دنج كاي فري نينن asanati boobu dañ ko siitas meneen prix kon da wax ne man jaa ku indiwaale fii biir asanati ci jëf ji yiw fa loolu ñeel na borom asra am saaliha fukki yu jëf ji yiw jooju waaye nag bu fekkee asanati da ko firee laay laay laa leneen ngay firi da nga na biir asanati ci laay laay laa na ko xayrun yiwu baree bari xayrun jooju daful doon gën daful doon ab ana tafdil sa yàlla lay doon fa loolu xayrun mina yiwu baree bari doo wax lu gën loola lu gën laay santaleel yàlla ñaata yoon nga wax laay la takk nga dina ji Dominique ah la ko de am na ko ko mos a la wax nag sa am benn fukki at léegi benn laay laay la amoo ko te kat doxamul luwul dërul la muy wuree la yor ci mën a wax waaye tere dañ ko baat boobu daf kootul mu ngi ci quatre soixante-dix cinquante quarante ñu ñàkk ko ne ko doo ko tudd la nga defe ne yëfi yàlla ku mu neex nga bokk président Abdou Diouf mii bu defee invitation da nga defe ne ku xiif rek añ ku fa añ tey boo kaar sax santé bi ay malakaan si taxaw du ngeen leen gis gis nga noonu alkaati def ci mbedd yi léeg-léeg oto ñoo ñu ne la nii boo bokkul ci sant bi nii lañ lay def fële yaa ngi fi romb ba bari ak bi malaaka yi leen def soo bokkee boo ñëwee ñu ne la jotaay bii jiitu na juddug maam Adama ñu sore ko Rasulullah na xale yee koy eh, eh, eh, organisé ne yéen ñii yéen a koy fekke ku ne mbubu ma ngay sol jiitu na maam Adama ak li nga am ci koppar ak la nga am ci wërsëg ak la nga dese ci fan yàlla na bari ku ne yàlla tëral na ko toogaay yu mel nii nag mat naa baril gaa yi ndax àllaaxira kat film la yàlla foo passé da koy saxay ngir maandoom bu bés pencee bu lay àtte da koy taqar ci rek ñett léeg-léeg mu ne la doon def fii keroog léeg-léeg ñu ci foo xam ne defe naa ni yàkkamti mu paase te waxoon naa la ne waxtaan lay lay laa boobu dañ koy seetal luñ koy firi neneen asanati boobu dañ koy siital meneen firi kon da ngay wax ne man jaa ak ku indiwaale fii bil asanati ci jëf ji yiw fa loo ñeel na borom asra am saaliha fukki yiwu jëf ji yiw jooju waaye nag bu fekkee asanati daf ko firee laay laay laa leneen ngay firi da nga naan man jaa ak ku indiwaale na bil asanati ci laay laay laa fa loo ñeel na ko xayrun yiw wu baree bari xayrun jooju daful doon gën du doon doon af ana tafdil sa yàlla lay doon fa loo xayrun min yiw wu baree bari doo wax lu gën loola lu gën laay laay laa amul amul dooleel yàlla ñaata yoon nga ko laay laay la takk nga te nii di déglu nii ah la ko de am na ku ko mosagul a wax nag saa juróom benn fukki at ba léegi benn laay laay la amoo ko kat dafa mul luwul dërul la muy wéy la yor ci mën a wax waaye tere lañ ko baat boobu te kootul mu ngi ci quatre soixante-dix cinquante quarante ñu ñàkk na ko doo ko dafa defe ne yëfi yàlla ku mu neex nga bokk président Abdou Diouf mii bu defee invitation da nga defe ne ku xiif rek añ ku fa añu tey boo kaar sax xam santé bi ay malakaan fi taxaw du ngeen leen gis gis nga noonu alkaati def ci mbedd yi léeg-léeg oto ñoo ñu ne leen nii boo bokkul ci sant bi nii lañ lay def fële parce que yaa ngi fi romb ba bari at bi malaaka leen def nii soo bokkee boo ñëwee ñu ne la jotaay bii jiitu na juddug maam Adama ñu soree ko Rasulullah na xale yee koy eh, eh, organisé ne yéen ñii yéen a koy fekke ku mbubu ma ngay sol jiitu na maam Adama ak li nga am ci koppar ak la nga am ci wërsëg ak la nga defe ci fan yàlla na bari ku ne yàlla tëral na ko toogaay yu mel nii nag mat naa baril gaa yi ndax àllaaxira kat silma la yàlla foo paase da koy taxay sa xaj ngir maandoom bu bés bu lay àtte da koy taqat ci rek ku ñëpp léeg-léeg mu ne la doon def fii keroog léeg-léeg ñu taxaw ci foo xam ne danga naan yàkkamti mu paase ma ni soo jébbuuloo na nga seet te gaañu waay ma day may sàmmi sal sal mani soo jébbuloo na nga seet ci gaañu waa ji ab doy ki ma doy may sammi sarjam lay la ànd ak moom ci ci seet ci gaañu waa la doy nga may sammi sarjam lay la ànd ak moom ci ci jaan loo na nga seet ci gaañu alaaji ab koy ki la doy may sab mi sartam day la ànd ak moom ci ci jaane mënu sa jëbbu loo na nga seet ci gaañu alaaji ab koy ki la doy may sab mi sartam day la ànd ak moom ci ci jaane mënu sa jëbbu loo na nga